bu be bu bees. Hmm, waaw. waaw waaw moom nag nattu daal en tout cas dal na daal ci këram ji jàkk. Hmm. ji jàkk nag ku ci nekk nag ak loo ko seedeel de. Hmm. ñun de liñ ko seedeel. mbaax. te te ku ne seq nga ak moom jàmm. non liñ ko seq li daal lañ xam ci moom. xam naa ne daal. ñii moom daal moom problème mu visa ak yu ni mel nag bind na daal vie bi dérangé <laughs> lii nag xam naa ni moom ñoom asma ak ñoom ay dara karara yooyu ak la fii la yaa côté yow gën a miin bala ko Viviane gi waaw kay front social baa ngi nii paasal waaw dëkk bi fépp yëpp mais dafa jaxas ñëppay grève waay man foogoon naa ne bi gi jóg na dem mu sama xarit bi mi ngi nii toog taa <laughs> liggéey gi nii toog mën a dawal oto dégg <laughs> syndicat d'enseignants yi grève ci la ñu jëm ñu ngi yëngal boulanger yi léegi faa leen yeeg jaxate jaxate yi ak ture ture yi moom yërëm naa leen boulanger yi ci grève la ñu jëm waaw hmm? fonde de la ñëpp jublu ah mburu bu manqué waat fii moom ah mbaa duñ sonn ah, ah yow de bu mburu <laughs> ñàkkee yi du garaaw ci yow ah yow waaw ñu yërëm moom. waaw ñoo ñoo jërë yërëm. ñoo ñoo jërë man ah xanaa jublu ci fonde gi rek te fonde ko nga fonde dafa fonde amul pertement amul pertement laay amul pertement dégg fonde amul pertement. yow moom xam nga ci dara yow yow xam nga ci dara yow xam nga ci dara. la Sénégal ñëw ñun ci. crédit mutuel na Fassane dafa am problème de. waaw nomination Mbaye Dione bi tam tur na coow foofu bi maa woo. ah bon waaw waaw dégg nga loolu. direct news ñëw ak ci nañu gis nga ébullition sociale bi grève yeeg ñoom it seen li ko waral Mohamed Boun Abdallah Dionne la journal bi nag moom moo wax. Ah nee na parce que li mu fi diggoon gars yi yëpp gars yi ba léegi nii mi ngi nii. ay mais loolu est-ce que Boun Dionne la tamit Boun Dionne moom da doon exécuté ab politique gi. wallaay wallaay déjà da doon appliqué rek. toow li toow li tonton jogay la. gars yi kay xanaa dañ ko ragal a bind rek. moom tamit ñëwal. waaw kay Moussa Baldé gi nii mooy ministre mbay agriculture xam nga gars yi nee nañ campagne arachidière bi ren doxul. doxul waaw weddi na ko de. nee na 4 millions 1 million de producteurs 1500 emplois. bu ñu waxee ah rek ah loolu. bu mu ko teg 1500 man kay du samay kaddu. <laughs> ministre Mbaye man ma déglu maître El Hadj ci suba ci rajo bi mu ne. waaw. nañu jëliwaat Abdoulaye Seck. pour agriculture bi moo ko wax de. waaw kon kon kay doxul. ah. ah Eva euh, yow euh, Ahmed. oui Eva Maricol Seck anamu. ah Eva Maricol mi ngi ci ñoom Macky. waaw mais man Eva Marie dama bëgg ñu delloo si ko ci santé bi nag. day ñëwaat sax ñu delloo waaw moom manqué na manqué na trop sante waaw hôpital Fann nag ñëpp a ngi koy jooy. donc Eva Marie Coll am na liggéey bu am solo bu mu doon amal ci sante bi moom moom mën na ko carrément ndax métier la. de moom dañ ko ci delloo rek ngir yàlla. sante baa ngi suuf d' d' accord cri de cœur gi gi gi dégg nañu la dégg Vox Populi ñëw ak ñun ci El mali Malick Gakou interview bu rëy la def. sa xarit bi. waaw kii kay du sama kii kay du sama xarit kii kay sama. sama xarit di sama nijaay ak bàyyi. wallaay day dégg nga loolu. Mhm. nee na 2024 sori na jege na. Ah. yàlla nag moo xam ñan ñooy ànd ci ay coalition waaye interview bi yëpp daf ci aw wax benn affaire boo xam ne paasal. man loolu dong sax presque laa ci revue de presse. lu mu wax hmm? nee na 4 heures de temps yu ne. Hmm. jigéen buy wasin faatu. waxuma chaque vingt quatre heures de. quatre heures bu ne. statistique jigéen de jigéen bi ah, wut. loolu yéeme na de Sénégal est-ce que xam nga moom waajuram mu jigéen ci la demee. waaw moo loolu daf ko marqué. moom gàkku mi. waaw quatre heures de temps yu ne laa la wax. dëgg la mais quatre heures. nee ci vingt et unième siècle. ci biir Sénégal. c'est gravissime. c'est gravissime. yéeme na. te loolu benn la sans compter yi ci des. yi ci des moom dégg nga voilà. Zhang-Khun. Zhang-Khun kookana mooy ambassadeur Chine ba <laughs> Zhang. mooy ambassadeur Chine fii coronavirus bi ngi looy de. <laughs> zhang moom zhang lu mu wax sax nag dafa seng seng <laughs> feebar bi ci boppam gars yi fitnaal nañ ko de. ak rajo kankan yi. nee na boo boolee yooyu yëpp moo gën a garaaw sa bi. Hmm? coronavirus gii nee na rumeur ak téeréer bi ci boppam moo moo moo ko gën a garaw hmm? ah loolu la wax de. acca acca acca maam Sidi waaw kay les écoles yéene kaay ñëw ak ñun ci diggante opposition bi ak nguur gi. metti na. dialogue de sourds la. opposition bi li ñu bëgg yépp waa Kër ki dañ ne du ci dal. kaaw Karim Wade ak Khalifa Sall dañ ne dañ leen wane amnistie. Hmm. mais gars yi dañoo bañ. dañoo bañ dañoo bañ. Mhm. parce que ñoom jàpp nañ ne. Mhm. ñii seeni i dossier justice àtte na ko ba pare. waaw. Hmm? c'est derrière nous kooku <laughs> passé dañ ko dégg opposition bi li mu bëggaat mooy arrêter maître Ousmane Ngom ak yenn loi article quatre-vingt yooyu nga xam ni wàllum liberté da koy baare vraiment ñu ñu dindi ko daal waaye waa Kër Macky nee nañu la maintien. lan le maintien. le maintien nañ ko fa baax. waaw le temps bon le temps il faut accepter le temps ñu jeexal seen mandat comme ñu ngi seen dernier mandat. doy na seen mandat. jeexal seen mandat waaw. nit ñi dañoo mën a toog fii di xaar ñu jeexal seen mandat. te xam nga fan nga xamee ne xoolal Birahim Seck forum civil. waaw ah. hmm. commission bi politique bi. ñoom dañoo waroon bokk bokk ci dialogue bi mais gars dañ leen a doo leen dugg politicien bëgguñu société civile ñëw dugg fa. xanaa dañoo narul jàmm c'est ba pare paasan gis nga politiciens yi ñii dañoo yëpp waaye ñun luñ ñu teg rek. ñun baax na ci ñun nañu ton rey tonton jogoy nañu rey bu mu ñu yërëm. gis nga gis nga gis nga arrêté Ousmane Ngom bi opposition bi nekk fi tey di kaas naan dañ ko war a dindi. ñoo ko fi defoon ñoo ko fi defoon. Hmm. Macky Sall ak waa këram doon kaas di manifester naan na fi dañ. Hmm. anti démocratique ñoom tam bi ñu toogee ñi ko fi defoo léegi ñoo ñëw ne Macky na ko dindi anti démocratique Macky ne déedéet du ma ko. c'est grave donc donc finalement ñoom ñaar ñëpp kenn amu ci woon gëm-gëm. moo tax général ñaa ne leen teg leen seen wàllum politique yële ak seen intérêt politique te ngeen ñëw ñu wax ci intérêt général bi. Seynabou Ndiaye mii moom ay doomu ay belle fille am la jël sotti leen xaw ma essence leen sotti xaw ma. xaw ma lan ci bët. belle fille waaw ay xale ay xale doomu jëkkëram waxal ci kaw yow. doomu jëkkëram ay doomu jëkkëram la jël noonu. soo ah Serif mooy wax pour man keneen ki la. non non non yow yow kenn du la jubanti. noo waxee baax na loo bëgg a waxee baax loo def baax na loo bëgg a def baax na yoneen tey sa maam sant ay dara ci plateau télé yombul de maa ngi doog a jàkkaarloo ko sant ay dara ci télé day caaxaan xanaa xaw ma bàyyi woon naa yaa mais ñaari ay dara ci benn télé sax nu muy def am net bàyyi woon na yaa ko dellu bàyyi woon naa yaa tax ma toog ah mukk ci àddina toogal rek gën a toog ndax man demuma moom maa ngi fii moom daa neex li sax dafi am yaayam dooroon naa frère bi ba pare <laughs> laajal punkal mi ci kër gi laajal bugaan. maa ngi nii nag bu dem fenn. mbërëm mi demoon na di dama ne ko sant ay dara rek wala ma dem. far indi la dégg évidence yéen kaa ñëwoon ñun ci paasal. du xew. Cheikh Oumar Anne. yóbbu na ña nii tribunal. moo di ñang ak Pape Alé Niang ba pare laaj leen dix milliards de francs CFA. ah, ah maître El Hadj Diouf maître Baboucar Cissé maître Fatima Sall maître euh, Babacar Ndiaye ñooy ay avocat mais Ahmed. Eh, Ahmed waaw Khalifa Ababacar Sall. waaw bi ñu nee IGE dafa dem génne ay kayit nangam ak nangam. waaw xam nga xam nga IGE. waaw inspection générale d'État. mosul wax ubbi leen enquête wala information judiciaire ci xalifa Sall. waaw te pourtant amal nañ ko. waaw ba jàpp ko ba téye ko. waaw ñu ne leen yóbbu leen ko assemblée ngeen déglu ko. ñu lànk. waaw ba su Sonko ñu yóbbu ko assemblée. waaw bii Khalifa. bu fekkee Cheikh Oumar Anne am na possibilité porter plainte. waaw bay laaj dix milliards. waaw xalifa ñaata la war a laaj. xaw ma ko. jërëjëf. xaw ma ko de. corps de contrôle yi ci boppam la ñuy laaj. ban njëriñ c'est extrêmement grave. corps de contrôle njëriñ la ñu am looloo jar a laaj. non c'est extrêmement grave c'est-à-dire que finalement bu ñu déggee lii Cheikh Oumar Anne dafa am ku koy protéger. ah est-ce que moom rek la. ak ñeneen ñi. mais corps de contrôle yi ñaata nit lañ fi épinglé. bare na. baax na. bare na nañ dem. libération ñëw ak ñun ci musiba Mbaba Kumba bi l'horreur. wallaay. mi ngi nii nee nañ jàngalekatu daara la. am hmm? oh. moom it Abibou oh. ñamu lar ñoo wax ci procès ay procès verbaux. gisoo AS mi nee na li wóor ba wóor mooy genn wàllu gone na ca quartier ba yëpp waa ji fooye na leen. MD hmm? ne ba ma amee 12 ans fukki at ak ñaar ci la ma force ngir may sëy ak ñeneen ñoo xam ne ay mineur lañ ba laalaale ma man mii. moom moom moo ko wax borom 12 ans bi AK nee na 12 ans laa amoon waaw loolu na dafa xawul jekk cim télé hmm? peut-être en français mais pas en wolof ah ñu wax ko ci français rek waaw il me il me suçait jusqu'à ce que ah, j'éjacule et il ah. récupérait mon sperme pour le mettre dans un récipient ñang ñang ñang patati patata kooku daal nañ bàyyi ñu ma a oh. sottil nag seen waajur yeeg yooyu man mënu ma caa yegg SB nee fukket ak ñaar la amoon moom tamit da ko doon loo ne ko pour yow say étude nga mën a réussir il faut ma yegg sa kaw bis bu ne sept jours sur sept. Hmm? waaw waaw waaw. ñu ngi nii mi ngi continuer sax di yegg ci kaw Jamra dina si wax bii moom Jamra dina si wax. ah, ah dégg guñ leen. Jamra Jamra dina si wax. ah ba pare mëniw mëniw di ndoxu góor yi nga xam ne nag génn ci ñoom ak xale yeeg yooyu dañooy jël di ko jaay ay njabarkat ci sous région bi. moo tax procureur fi nekk nii ubbi na information judiciaire waaw. waaw Oh. accusation yaa ngi nii la. j'espère que c'est pas vrai. viol sur mineur âgé de moins de treize ans pédophilie détournement de mineur acte contre nature et